gannaaw bi ñu ci Vox Populi euh, Populi ñu dugg euh, la tribune Moustapha euh, bu ko defee rek ñu ñëwaat ci sortie bi nga le leader du mouvement Gëm sa def après son arrestation focus sur les législatives du 17 novembre 2024 relaxé Bougan charge encore son Sonko et vise la victoire commentaire sur ça d'abord. Mm-hmm. waaw xam nga Charte Sonko bi man waxoon naa ko démb balaa moo mm-hmm. dem conférence de presse laa ko doon wax ci benn plateau bu ma def. Mm-hmm. mu ne wax dëgg yàlla déglooguma ma ko waaye xam naa li muy wax. Mm-hmm. te balaa maa ñëw ci loolu ngay commentaire sax mais Abdou Khadre na njëkk a ñëw ci ñu toog ci table bi. Mm. nga euh, àddina. oui daf ci baax. xam nga dama wax loolu. oui. mënul toog nii il ne peut pas permettre mu toog nii ab Mbow toog ci wet gi. Pape Djibril Pape Djibril Fall toog fii Assane Diouf toog fii mais Bougane ak Abdou Mbow ñu toog nii image boobu ku la ko waxoon 6 mois wala 1 an ci ginnaaw di nga ko gëm. lu muy tekki. mais dafay tekki ne ñi nga xamante ne ñooy politique. principe amuñ ci dara. xam nga lu ñu am positionnement la ñuy defee fépp fu ñu taxaw maanaam na positionnement pour mieux mettre devant pour mieux être devant. Mhm. maanaam naka laay def ba nekk ci kanam. Mhm. damay gën maanaam ki nga xamante ne tey jii Bougane nan la fi yàkkul Macky Sall ak ñi mu àndal. Ah. moo fi toog mu ne Macky Sall suy xeex ak nit li may njëkk a def mooy fàq yet dóor ba pare dem laaj Macky loo jotee kooku. comprendre nga li wax. Mm-hmm. day wutee dóor Macky ba doyal doog a doog a àttane lan jotee ñaar ba noppi. kon kooku tey jii bu demee ak li mu wax Macky Sall ak li mu ko juñee tibb tànk topp tànk ak lépp ñëpp xam Abdou Mbow ak Macky Sall. Mm-hmm. ni ñu mel mu nekkoon président groupe parlementaire am. tey jii nga dem ba ne léegi yéen yéen a groupe yene dajalo dajaloo di dem kon mom est-ce que gëm na la mu doon wax mom mom Bougane. mom Bougane est-ce que gëm na la mu doon wax. parce que pour man bu ko gëmoon tey jii am na yoo xamante ne tey ko nangu. est-ce que nekkul ben mouvement de soutien en faveur de Bougane aussi. waaw mais mouvement est-ce qu'il a demandé à ce que les mais mouvement de soutien dafa am lu ko jiitu. oui dafa am lu ko jiitu mooy coalition bañ dem bokki ji ak. ñen intercoalition yi ñuy tudd ak yoy non ñuy wax. Mm-hmm, parce que dafa am yo xamantene man bo doonee mouvement de soutien tey jii. Mm-hmm. ñu ne dañoo def benn moment de soutien mais boo ñëwee quand même président bi am na ñoo xam ne boo ñëwee mën a ah wax dëgg yàlla je te respecte beaucoup mais jox leen ko place mu toog ci kanam ni jox leen ko mu dem toogi na le mm-hmm. de jox leen ko place nangam mais su fekkente ne tey ji yow da nga ñëw am am am loo bëgg incarné am loo bëgg proposé askan wi dem ànd ak ñi nga xamante ne askan wi daf leen naa wàcce problème dafay am ah. problème de cohérence dafay am mm-hmm. parce que les gens vont dire que ne mais kii ñi mu àndal ñun bëgg nañu ànd waaye ñi mu àndal mooy problème bi ñi mu àndal ñoom lañ fi jëlé barki démb est ce que mm-hmm. kon du fe bëgg délu suwat soir joggé won jóge woon mm-hmm. problème lay poser motax mané na ne ne que bi rek man dama amone problème ak toogaayu ak ak ak ak toogaayu bugaan bi mm-hmm. nga jël kàddu gi jox ko Assane Diouf mi wax je n'ai rien contre Assane Diouf amul ben mais problème fay am tamit parce que bu fekkenté dañ dañ solo fo xam da nga wara proposer contenu da nga wara proposer offre bu bess da nga wara proposer proposer ben taxawaay bi koy jox kàddu kii toog sa président defoon naa ko benn jour ak Pape Djibril Fall ba muy toog jour ba muy wax di jooy moom kenn koo xam ne dañ ko mës a xàmmee mhm. ci wàllum théâtre ak yu ak yoroon mu toog ak yeneen ak yeneen mais gis nga pa non communication dafa am solo gis nga Abdou Khadre y a des détails non négligeables am na détails ne kenn du ko négligé mhm. man tey su ma doon def sortie ma affiché c'est pas n'importe qui ma war a ñëw toog sama du du xeeb mais am taxawal ci buntu wala nga organisation wala dafa ni nangam ak nangam mais do tok fi daguma la de même en communication. Mm-hmm. on nous apprenait la mise en scène. en communication politique. dañ la koy jangal mise en scène. waaw loolu bu fekkente ne isig nga def. xam nga dañ da ngay def ba simili sa campagne. on on salue Domingo Mané. waaw Domingo Mané <laughs> au passage. non dañ lay jàngal xoola nga abu auto mm-hmm. taxaw ci biir yëkkati loxo defar affiche def campagne. dugg ci classe yi wax ak yi. Mhm. préparer discours profession de foi yëpp. da nga koy def campagne présidentielle campagne nga koy def nga am benn colistier ba bu colistier boo xam ne mooy nekk. mooy mhm. nekk sa wet. Euh, américain am américain. waaw léegi ñooñu tey jii bu fekkee ne da nga da nga ne si communication euh, nga bokk. Mhm. wala ñooñu nga bokk tey jii mais am na yoo xamante ni bu ko jaree da nga koy def taabal boo xam ne yow kese toog. kenn terew la ko da ngay benn taawul boo xam ne yow kese yaa toog yow yaa taxaw comme ni ko Ousmane Sonko defoon pupitre ngay teg ak micro yi nga ñëw taxaw su fekkente ne am na ñoo xamante ne tey ji bu ñu affiché woo bëggu ñoo affiché wu wala bu ñu affiché am na orientation bu ñu yóbbu say mbir. comme su comme Ousmane Sonko dans le cadre de Yewwi Askan. de Yewwi Askan day taxaw moom kese. te loolu li mu lay mën a dimbalee mooy moo tax ñu bëri dañuy dañuy bëgg système américain boobu mhm. xam nga lu mu lay dimbalee mooy système américain boobu noonu mooy nga teg pupitre taxaw mooy dañuy tax kenn du xam ñi nekk si extrémité yi lépp dafa am signification mhm. léegi su boobaa nag ku nekk day xam selon fi nga toogee yaa gën a jege waa ji wala li ngay représenté ci mbir mi léegi su boobaa bu fekkee dafa am benn querelle de position bu nekk sa ginnaaw ñeneen ñi di buuxante gi daf la mhm. sa pupitre doo xam tu te doutes de rien du tout. doo xam dara daal ngay teg. non non da nga koy teg daal di micro daal ñëw taxaw. Mm-hmm. nga tax wax comme ni Guy Marius Sagna dafay bërki dem. c'est ça pour man am na fu muy toll il faut que yooyu mu ci bàyyi xel. Mm-hmm. mais am nu muy am na nu muy nu muy nu muy communiquer noonu loolu pour man am na ñu bëri ñoo xam ne ne serait-ce que boo gisee photo bi wala affiche bi rek. dafa am fu mu lay renvoyer foo xam ne tu te dis que ne mais le gars là est-ce que politiquement. Mm-hmm. il est balèze dix na diisaay boo xamante ne il peut faire mal. j'en doute. ouais. Euh, nga. Mhm. voilà léegi moom euh, Bougane euh, da nga ne sànq bi mu génnee ak euh, enquêteurs yi. Mhm. bi mu ñëwee le Bougane d'avant mhm. n'est plus le Bougane de d'après. dans le discours. en tout cas le discours virulent bi nga xam ne dañ daan wax ñu xaw ci dégg yoo xam ne xaw na ñagas mais teewul pour autant taxul mu bàyyi le premier ministre Ousmane Sonko il est toujours dans la radicalité non non mais du ko bàyyi Mhm. du bàyyi le premier ministre Ousmane Sonko côté du ko mës a non mais parce que mon mon cible parce que bul fàtte est mon objectif il veut imposer une dualité comme nous ko Macky Sall amé on Ousmane Sonko lim am pour gagner c'était ça c'est ça c'est ça lolu la bëgg hum. lolu la bëgg dafa bëgg imposer une dualité mhm. fournir ne Sonko ne Bougane fo ne Sonko lolu la bëgg or dafa faté né Macky Sall bi dualité di am ñom ñaar seen dafa amoon lu ñuy wax benn objet benn lu leen lu leen lu leen lu leen boole. Mm-hmm. maanaam dafa am foo dañ fa daje. Mm-hmm. xeex nar am ñoom ñaar mais Bougane ak Sonko dajeeguñu ba xeex di am xam nga li ma la wax. Ah. maanaam dafay les dossiers Adji Sarr moo leen boole woon. fii y' a y' a pas rien léegi nag loolu mooy jafe-jafe Bougane. mais nee na ko euh, maanaam ñoom. ils sont pas compétents que rupture bi ñu wax amul et cetera et cetera yooyu xam un cadre opposant la yooyu opposant dañ koy wax mhm. mais Ousmane Sonko ak ak ak Macky dafa amoon lu jaral xeex tout à fait parce que dafa am ben dossier bu fi nek mhm. Macky taxaw bëgg jappandiku ci dossier bi sànk ko mhm. dossier bi sànk ko mais bougan amul suñu mu jappandiku pour mën sonal ñii légui dafa am tous les problèmes du monde manam da ngay da ngay da ngay da ngay xeex fo xam ne jaru ko fa xam nga li la est-ce que comprendre nga li ma la ñi leen dañ doon xeex dafa amul lu ñu doon xeex manam dafa taxaw

li ma di menacer kat motax ñu jàpp ma wala li may nekk menace ñoom moo ñu jàpp ma mais ñi xalaatuñ ko ko may. Hmm. parce que Macky Sall dañ ko joxon tànk ñom ñu daan Macky ñom tamit duñ procédure bobu duñ ko mayat bugan di japp tànk ñu koy daan. ils font certainement tirer les leçons. non non non dañ ci tirer les leçons bien sûr. Hmm. bien sûr léegi hmm. nak bugan malchance bobu la am. amul chance pour mën a ci ci ci ci dara pour mu dem bu ko wesso bon dafa def opposition comme niko ko ñeneen ñi defee xamuñu dara ay ciuna lañ c'est son droit. c'est son droit c'est ça le plus absolu opposition opposant bu nekk am nga sañ-sañ taxaw nga ni xamuñu dara dañoo nul nañ leen fi jëlee dañoo réccu nangam loolu c'est normal oui euh, mais bëgg naa taxaw Moustapha ci lu ama am bon j'estime que lu ama am solo la euh, parce que quand il y a changement c'est parce que dafa am lu fi nekkoon bëggatuñu Mo amati fii moo tax ñu am changement am de nouvelles orientations une nouvelle direction pour dem ci lu bees mais euh, dañu dégg Bougane Gueye euh, s'il, si Ousmane Sonko, euh, s'il a osé dire au temps où il était opposant, osé dire que Macky Sall, euh, dire que Macky Sall en tant que président a menti, euh, qui est-il pour ne pas qu'on lui dise qu'on lui dit la même qu'on lui dise la même chose, qu'on lui dise la même chose. Mais est-ce que faut aussi, vous faites taxé

yow ki lay jàngal boo bëggee xeex ak moom. Mhm. Abdou Khadre du yomb de. waaw ah. nañ sa màggetu professeur. Mhm. boo demee dem ba foog ne mën ngaa résoudre problème yëpp. di nga dem ba bëgg a wéer sa àll yi mu ne la kaay nga ñëw mu jox la benn problème boo xam ne da nga grand problème bi nu ñu koy résoudre. <laughs> parce que nag eh, jinne du joxe clé yëpp de. bu dee moo leen ko jàng na leen leer ne. comme nee moo leen ko jàng li ñuy def nii. Mhm. na leen leer na am na clé yu mu téye di leen xaar. na leen leer na am na clé mu téye di leen xaar. et chaque koy répéter. su fekkente ne da nga ne diw moo leen ko jàngal yow façon bi ngay gën a mën def pour mën a pour mën a euh, pour mën a gën a valoriser wala jox beneen kii li mu la jàngal da nga koy da nga koy approprier wu maanaam. Mhm. da nga koy da nga koy bouganiser mais pas nga sonkoriser ko. comprendre nga li ma la wax. da nga ciy indi touche bugaan ñu xam ne ça c' est qui est en train de faire quelque chose c' est qui est en train d' innover. Mhm. mais boo ñëwee nga copier ñu Sonko ce que Sonko faisait ce que Sonko disait problème dafay am parce que nit ñi goût innovation bi duñ ko gis si yow. xam nga guu guu guu boobu noonu moo may Ousmane sonk li mu am ñëw ci discours bi ci posture bi ci taxawaay bi ci lépp lépp révolutionnaire affaire bi indi indi yeneen affaire buggaan lan la indi touche bu bees boobu gisaguñ ko lépp lu mu def dañ naan sonk la koy xoolee moom mu toog ne moo ñu ko jàngal Sonko nangam déedéet dañu bëgg gis yeneen yu bees moom ko yàlla mayoon ci wàllum créer la ci Macky Sall. waa mais bu sonk defee mu réussir. xanaa war na mën topp yoon boobu nag pour réussir moom itam. mais wóorul. Ah. déedéet. parce que ki on mi ngi sa ginnaw xam nga Sonko fi ñu dafa dem. ci génération bo xamantene après Sonko benen jaarat na wala keneen jaar mu ñëwaat. Hmm. mën nañ ni ki Sonko mooy idole mi ngi mais ki nga top ki nga bëgg mi ngi dund problème am. Hmm. xam nga de nga <laughs> bëgg mi ngi dund. problème problème parce que moom ki bëgg top ni hmm. xamul Ousmane Sonko comme nous ko Babacar Justin Ndiaye doon waxee toujours buy position mooy bu ñu koy attaqué wala muy attaqué. bi attaqué sax si lay gën a nekkee ci position baax que ñu koy attaqué maanaam posture opposant ñu bëri dañ ko doon naan léegi nekkatoo opposition ak nangam ak nangam. Mm-hmm, mm-hmm. parce que dafa xam ne forum foofu la nekkoon. su Macky Sall dafa yóbbuwoon game bi ci côté boo xam ne dafa demoon ba Macky moo ko doon topp dafa meloon ni Macky moo doon opposant ak ay. il menait merci. <laughs> léegi nag kooku ku mel noonu tey ji boo ko bëggee moo ko waa aar nu mu demee woon campagne bi demee na aar dem ay yoonu mu romb waa aar cokkas leen mhm. ñoom ñëpp di xataraayu communiqué fii ku nekk di tëb di daal Ousmane Sonko nangam kii di xataraayu noonu ñoom ñëpp ku nekk di wata di daal may leen déet yéen a ngi perdre seen temps def ngeen benn communiqué avancé leen mais seen campagne bi ngeen di wër di weddi àndul ak mag yi defu ñoog nii moom xam na ne waxul dëgg bi mu koy bind sax xam na nang ku ne di wax ku ne di wax lu ñu ci mujjee il faut rester la am mhm. donc parfois il faut nga demee ak xel booy il faut nga demee ak xel surtout politique mais malheureusement yenn saa yi bàyyi ba campagne dina am ñoo xam ne même piège boobu la ñuy daanuwaat euh, Sonko dina leen romb dóor leen benn crochet ñu def seen mbooloo def seen diiraan topp Sonko di daw ba campagne bi jeex Ousmane Sonko et de destruction massive loolu la loolu la loolu boo ko xamee si hmm? ki da nga noppalu ko day wax nga def ben il dal di non non bu bu sekene tonto on avance. Mhm. mais léegi après ñu am défaite wala am plus fort ñu jiñ ko Sonko. ñu nous waxé une ñu bari ñu non c'est pas ça. Hmm. Euh, on va on va on va passer euh, à.